salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit ñi seetaan ak fépp fu ngeen mun ne ci àdduna ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen allah di fas yéene dikkaat ak yéen tey ci beneen uh, secret beneen njëriñ boo xam ne incha allahu dafay uh, jëriñ ci wàllu ku wéradi feebar incha allah uh, bu ko defee képp koo xam ne da ngaa yëg feebar mba wéradi incha allahu Euh, incha allahu nga jëfandikoo lii yàlla ci kàttan ak mbaaxam mën na laa may wér ñu koy jëfandikoo nag mooy gannaaw ba nga bindee bismillahi rahmaani rahim julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo paree nga bind xaatim bi incha allahu soo paree ci xaatim bi nga bind ñaari aaya yii boo ko bindee bam jeex nga daal di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suuf incha allah comme ni ñu ko defoon ci kaw bu noppee nag nga daal di ko def saafara incha allah. boo ko defee saafara di ko sangoo suba di ko sangu eh, di ci naan di sangu di ci naan incha allahu yàlla ci kàttan ak mbaaxam mën na la may incha allahu yàlla wéral boobu feebar incha allah ndax feebar yàlla moo koy teg jaamu yàlla te suñu borom tam moo koy faj kon moom mi la teg feebar bi boo ko ñaanee mu faj la te moom mooy war a faj tam dina la faj incha allah innahu huwa shaafi moom mooy ki nga xam ne mooy faj bu ko defee boo defee niñ ko waxee ni incha allahu yàlla suñu borom moom na la may incha allah ci mbaax ak kàttanam feebar mën naa wér waaye lépp nag ñu ngi ko tënk ci alquran incha allah lépp luñ fiy joxe incha allah lépp ñu ngi ko teg ci alquran moo tax ñu ñeme ko mën a joxe sax ndax alquran moom la yaatihi l baatil min bayni yadihi min bayni yadihi wala min xalfi bu ko defee incha allahu képp koo xam ne ni jëfandikoo nga suñu eh, ci kàttan ak mbaaxam na laa may wér incha allah loolu tey moom lañ indi tey bu ko defee ni ñu ko waxee noonu ko defee rek incha allahu di leen ñaan yàlla incha allahu képp koo xam ne tam eh, jëfandikoo nga ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala na la may lang ca jublu woon yàlla defal ci sa eh, lu koy sa njort موخم جي سكر بيلا موخم جي مبولم سكر واخم درنكو دوغل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبنين إن شاء الله تبين سكر